jigéen yi woowee seen bopp les femmes leaders di Sénégal ñoom ñu benn yoon ci jàmmarloo yi fi jotoon am ci weerum juin ñoom nag la ñu bëgg rekk mooy jàmmi réew mi. ci bile waxtaan nag lañ ko ibee rekk mooy ñaawlu yàqu-yàqu yañ fi jotoon nemmeeku ci jàmmarloo yi fi jotoon am. li xew yéen ñëpp xam ngeen ko Sénégal yëngu ay bakkanu rot. ay blessé yu met alalu nit ñi ñu yàqu ko nit ñi tiit nit ñi am euh, même ci Sénégal ak feneen dëkk bi yëngatu loolu mu naqadi ñu ne nag ñun ñooy yaay booy yi te yaay booy yi mooy digg ginnaaw ca famille ca réew ak fépp kon ba ñun dañu jóg ne yar ne lii xewa dootuñu ko nangu ñoomu jigéen ñi ñu jàpp ni rek jot na ñu amal ab ñàngat gu sori ngir génn réew mi ci biile guuta looloo waral ñu ànd ak ay jigéen yu seen xel màcc ci wàll wi ngir ñu indi ab saafara ci la fi jotoon am. xam nga li fi amoon ñu ñëpp la naqadi ñu ñi intervenir bokk ci théâtre de conflit yi am ci Afrique xam nañ ni conflit su amee wala crise toujours jigéen ñi ñoo ci gën a sonn te dafay yàq économie. moo tax nag ñu daje ni nañu xalaat seet ñun naka la ñuy def pour mën dugal suñu loxo pour jàmm dellu si parce que ñun jàmm lañ ñu xame taraanga lañ ñu xame sutura lañ ñu xame respect lañ ñu xame pour delloo si yooyu nga xam ni moo doon mandarga Sénégal di taaru Sénégal bile ndaje nag ñu na ko wéyal ba suba ñoom jigéen ñi bokk ci réseau paix et sécurité des femmes de l' espace CEDEAO di rek ñaax nguur gi ak ñoñam ngir ñuy woo jigéen ñi ñuy wax seeni ay xalaat ci foofee ñuy jëlee ay décision ci lu jëm ci aar kaaraanga réew mi ak jàmm bi nga xam ni réewum Sénégal moom la ràngoo